asalaamualeykum mbokk internet yi dalal ak jaamu ci Sen Sport 221 dañ koy tambolek ak équipe nationale bu Mali ak ki nga xamné moy Yves Bissouma bi nga xamné mom dañ ko zappé ci match yi nga xamné ñom war nañ ko amal ci Bessilé mu jur nak ciow jamono bi digënté mak équipe bobulé gannaaw bi nga xamé né coach woowu ko tali tax ba woowul ko néna manam Yves Bissouma dal dafa déssé adapté wu ci système bi nga xamné mom lay footballé melni na ni daal ñi mu sékkal li nga xamné moy mbiri ñoko gëna paré pare ñi mu bokal postu xeyna lolo tax dégg maam bo woowul ko ci match yi nga xamné ñom war nañ ko amal ci Bessilé té bénn bi wara dox seen digënté ak Nigeria voilà lool nak nek lo xamanteni néna nañu naqari na lool ki nga xam ne mooy Yves Bissouma bi nekk foofu na ca Tottenham ba sax dafa supprimer bépp photo boo xam ne rek amoon na ko voilà ci li nga xam ne mooy pasam li nga xam ne mooy mayop équipe nationale bu Mali te wax nañu fédération ba comme moom nekkatul koo xam ne daf leen di follow toppatul gars yi li nga xam ne nag moo ko war du dara lu naqar wi nga xam ne am na ko ci zappe gi ñu ko zappe waaye coach ba li tax mu daal di koy zappe moom nee na maanaam daal parewul wala bokk adapté wul li nga xam ne mooy système bi nga xam ne moom mooy lay footballé nañu naqari na ko lool te wane na li nga xam ne mooy naqar wowule ci li nga xamante ni mooy compte Instagram ki nga xam ne nag mooy Thibaut Courtois tey jii dal dinañu koy opéré gannaaw gaañu gaañu bi mu amoon niki demb waxoon nañu leen fi ne de am na yenn kayiti xibaar yu ngeen di xam ne ne ay juróom-benn jàpp juróom-ñaari semaine dina ko toog waaye mën na ko ëpp sax de ndax am na taskatu xibaar yu xam ne ne mën na dem sax ba juróom-ñetti semaine maanaam ñaari weer yu woo kong mën na koo toog balaa muy dellu loolu nag boo ko déggee mooy saison jeex na loo ci mën a dégg daal opéré nañ ko ba lépp ba xam moom jeex na ndax bu ñu bàyyi xel li ëpp ci saison bi sax joué ko ba ñuy tàmbali la am gaañu gaañu faju ba ñu jàpp ne tane na mu dal amaat li nga xam ne mooy blessure tey jii lañu ko dal di comme ni ko kayiti xibaar yi dal di gannaaw loolu Real Madrid googu dañuy des ci moom ak ki nga xam ne moom la wax Alphonso Davies bi ñuy topp bu yàgg ba léegi Bayern Munich nag mel na ni ñu ngi bëgg a leeral seen diggante ak Real Madrid ci jour bi déet ndax yónnee nañ ko li nga xam ne mooy contrat bi ñu bëgg mu dal di koy signé bu fekkente ne bëgg na continuer ak ñoom mu signé contrat bu ñu ànd kon na liggéey bu fekkente ne tam dafa ne non ne su boobaa duñ def lenn da nga ne xalaatu ñuy téye jour boo xam ne voilà daf toog ba contrat am jeex xam nga ñoom loolu mel dund nañ ak ñoom ndax kat contrat ba dafa jeexoon tàkk mu dal takki bagage bagaasam dem ñoom amuñ ci benn koppar lu nu mel nag xëy na moom la ñuy bañ bi paamu dal leen ci ki nga Alphonse Davies ne daal contrat ba ñu ko yónni bu fekkente ne daal tontu na leen waaw wala déet te ñaar yi rek la xaar ci moom mu ne waaw wala déet bu fekkente ne indi na benn tontu ci moom su boobaa coow la dana jeex bu ne waaw ñu continuer liggéey mu signé contrat bi su ne déet nag ñu jéem ko jaay jàll ci leneen ki nga xam ne mooy Joao Cancelo di joueur FC Barcelone xam ngeen ne fan yile bokkul woon ci match bi Barça doon am seen diggante ak Atlético de Madrid la ko waral nag nee nañu dafa amoon benn ci mbokkam koo xam ne dañu ko saytu woon aw yaramam gis na nag dafa am problème mu xol voilà loolu nag nekkoon loo xam ne dafa juróon njàqara ci ñi di waa Barça bëgguñ woon jël risque bi jéloo ko mu dal di des ci terrain bi ndax kat comme ne nañu mbokkam moomu day jege ko lool dafa am problème mu xol ñu jàpp ne lu nu mel moom it mën na ko jàpp ñu dal di koy dégg maam ber saytu nañu nag aw yaram ba gis na daal fi mu ne moom voilà dara jotu ko mu ngi faayin moom ki nga xam ne mooy Joao Cancelo ba tax na nee nañu match yi di ñëw moom dina ci dal di bokk maanaam bu ñu jógee ci trêve international bi loolu nekk xibaar bu am solo pour ñi di waa FC Barcelone ci match bobu nak ki nga xamantene moy Fermin Lopez ak Sa Hernandez yep dey victoire bobu ñu amone ñom mom lañu ko tuddé won sax di Joao Cancelo gëna bi nga xamé né mu ngi doon jankwanté ki jafe jafé ak mbokk mom nga xamante ne mu ngi dundu voilà jafe-jafe xol boobule way mom dara la jottu ko comme ni lañ ko waxé saytu lañu ko ta dina ci wat ak équipe am boobule ki nga xamné kay mo am jafe-jafe moy ki di Manuel Neuer bi nga xamné moy gardien wu équipe nationale bu Allemagne dafa amati blessure tay ji ba dal dinay génn ci li nga xamné moy regroupement yi déllu na fofu la ci Munich gëna bi nga xamé né kat dañu gis na dafa am gañu gañu bu yees léegi nag loolu nekk mbir moo xam ne dina jur njàqare lool ci li nga xam ne mooy équipe nationale bu Allemagne ak Bayern Munich xam ne moom itam fan yi na jouer ci li nga xamante ni voilà mooy quart de finale Ligue des champions diggante mag Arsenal bu ngeen fàttale ko nag Bayern Munich ñoom seen défense bi ren ji baaxul de dañuy encaisser rek bu ngeen bàyyi xel yu mujj yëpp dañuy encaisser rek en loo ci mën a seen gardien bii nga xamante ne jàpp nañ ne bokk na ci yaakaar yi moom Manuel xamante ni bu yàggul dara la jóge woon ci blessure ba mu amoon daaw ba ren amaana tey jii gaañu gaañu xamaguñu nag ñaata temps la koy jël balaa muy dellu si en tout cas loo ci mën a dégg moom fi mu ne nii moom njàqare am na ci ñii di waa Bayern Munich bi war a joué digganteem ak Arsenal bi nga xam ne temps yi ci forme bu jéggi dayo la ñu nekk du moom képp nag moo am gaañu gaañ ci équipe boobu di Bayern Munich même ki nga xamante moom la ñuy wax Sacha Boey nga xamante ni moom dañu ko signé woon bu yàggul mu dëkk ci Turquie moom itam tey jii nee nañu dellu na ca Munich ndax blessure boo xam ne dal dina koy am voilà kon loolu it beneen njàqare boo xam ne Bayern am nañu kon seen défenseur bu yees bi am na blessure seen gardien bi moom itam am na gaañu gaañu ci jamono boo xam ne nag ñu ngi dund jafe-jafe yu metti ci wàllum défense Dani Alves mi nga xam ne dañu ko aate woon ba war ko tëj ay at yu bëree bëri te nag ñu dégg maam koppar yu toll ci cent cinquante ko ki nga xamante ne moom la seqaloon mbir mi muy victime bi te loolu nag ka ci benn million ci xaalisu euro voilà ngir sàkku ñu dal di nga xamante ni moom la ñu wax Dani Alves ci kaso yi voilà loolu nag kii di xibaar dal nañu koy xam ne nañu cent cinquante nañu ko ko yemuñu ci waaye dañuy topp mbir mi ba mu génne ci kaso gi te benn million la bàyyu Neymar dégg bam pare tek ci table ji su ko defee mu dal di koy béel manam mu am li nga xamante mom lañu ñuy liberté provisoire mom ki nga xamante moy Dani Alves Sidi Sarr international sénégalais dafa dal di signé foofu la ca national bu France ci club bi nga xam ne la ñuy wax Épinal moom mi nga xamante ni nag jaar na ci club bu mel ni Nîmes Olympique at yële ci ginnaaw nekkoon na tam ci club bi nga xamante ni mooy Lorient joué na ci Ligue 2 joué na ci Ligue 1 moom jamono bi mu ngi ñaar fukki at ak juróom-ñaar Sidi Sarr mi nga xam ne ñu bëri amoon nañ ci moom yaakaar ay jamono waaye nag na daal moom jafe-jafe daal bëri na lu mu ko dund ci carrière am léegi nag dafa dal di dellu nga xamante ni ne mooy yéebaane bi voilà jamono bi kon ñu xool bi nga xamante ni xëy na loolu lay wane ci bés yi di ñëw ndax kat xëy na dina ko ubbil yeneen buntu mu war a mën a amaat équipe bu mag wala boog équipe am boobu yéeg monté ci Ligue 2 wala boog Ligue 1 nekk koo xam ne ko ñu bëri amoon ci moom yaakaar la kon ni ma leen ko waxee moom Sidi Sarr kon feeñaat na foofu la ci France Real Madrid kayiti xibaar yi xam na nañu ne kat seen joueurs yi nga xamante dañu war a teew ci coupe d'Europe bi muy euro bi wala bokk ci li nga xamante mooy Copa America am bu ne daal góorgóorlu nga ak sa équipe li nga xam ne mooy demi final wala bokk final ci euro wala mu ci mën a doon su boobaa yow dinañ la dégg may nga noppalu ba doo bokk ci li nga xamante mooy pré-saison yi nga xam ne nag dafa am solo lool ci équipe yi ngir ñu waajal seen ab saison képp koo xam ne daal sa équipe dafa yéex a toog dem na ba jouer ci li nga xamante ne mooy final wala boog demi final ci euro wala Copa America yooyu les joueurs duñu bokk ci li nga xamante mooy pré-saison yi bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi ñu fàttali leen Sénégal démb éliminé nañ ko ci bi euh, ci guddi gi match bi mu doon am digganteem ak ñi di waa Ghana voilà Ghana bi ko Ghana pattale benn bal ci dara mu doon match bu doy waar boo xam ne képp ku ko seetaan di gis ne dëgg-dëgg Sénégal pare wuñu ndax kat match bi ñu joué tey boo xam fuuf amaana yéex nañ ci ñëw lool waaye ñi seetaan match bi xam nañu ne match dem bi moom neexul woon lool ci côté Sénégal ndax li ñu doon football wax dëgg kenn xamu ko kon gars loolu mooy li fi gënoon fees di wax ngeen way di topp Sen Sports 221